leen ak jàmm ci le Dakar wa 221 HH DKR 221 tay ñu dellu ci waat ci benen numéro ñu fas dalal ben ben kangam ci hip hop sénégalais ben ndaanaan ben grand bu yàgg œuvre œuvre bi moy ñi ñi wowe ay kangam tay ci hip hop Sénégal ak ci aduna wërgal këpp amna na fu mu jaar ak ñoom. Canal 4 bi yalla dafa defoon banlieue ñep nangu ko. Mm-hmm. région yi fep donc faut tourner le canard Carte que doon dégg. dëgg la mais si samay génération amener na ñoo ne dañ doon jaar si suuf di décourager le yenn boy. Amener na ci amener xam ne du mu wax mais man xam naa ko parce que jour bu may def conférence de presse bi yëngu leen moom si boppam ñëw na ma grand yow li ngay def nii booy jaruñu parce que boy yi ngay def lu ñu suba ñooy wëlbatiku di la saga d'ailleurs.